نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي internet mi limite tv ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal bu baax a baax euh, ci seen émission Serigne amaan mbégte ak contentement bu baax a baax di jàkkaarloo ak Serigne Daouda Seck Serigne Daouda Seck borom soble bi la ñu fas yéenee dalal tey ci seen biir émission séq moom ak waxtaan bu yaatoo yaatu moo xam li nga xamante ni moom moo di mbirum seet ñi nga xamante ni dañu bëgg ay kayit pour tukki ñi nga xamante ni seen xelu doom yi dafa naqari wala ñuy wut li nga xamante ni moom moo di examen ba ci ñi nga xamante ni rek dañoo bëgg ubbeeku ak leneen ak leneen daañu ko yaatal bu baax a baax ci biir waxtaan bi waaye balaa boobu rek dañ koy bàyyi mu nuyook internet sans limite TV yi nga xamante ni ñu ngi koy seetaan Serigne Daouda Seck ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal bu baax a baax ci sans limite TV. bismillah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran ila yawmi ddin ila yawmi alqiyama ila yawmi yubaasun wa baax ginnaaw loolu ñu ngi di fay nuyoo di leen nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp ak waa site bi képp ku ñuy seetaan di nuyu xalif général de Layène Baye Abdoulaye Thiaw Laye ak porte parole bi Sëñ di Mouhamed Lamine di leen ñaanal fa nu gudd ak wér di leen wax dalal leen ak jàmm di leen ñaanal yàlla yéen tamit yàlla yëkkati leen jàppale leen seen mbir moom moo ñu ko gën a xam ñun ñëpp yàlla li ngeen bëgg yàlla defal leen ko allahuma amin balaa ñu dugg ci biir waxtaan bi rek dañ koy daal ci ubbee ak dàkkantal bi nga xamante ni moom lañ woo moom lañ lay woowee maanaam Serigne Daouda Seck borom soble bi euh, tur bi fan la jógee. waaw alhamdulilah tur bi nag si mun nañoo wax ne soble bi la jógee parce que dafa am xam-xam bu ci nekk ñu gëstu ko jàng ko ba xam ko yàlla dimbala ñu si defal ñu si sutura ba bañ tuddee ñu ko ba yaakaar naa léegi ñun suñ tur sax. Euh, raw na jéggi na Sénégal parce que barki Demba Ndiaye lañ jugee Gambie waaye kuñ tase rek bu ñu ji mooy sëñ Daawda rek dañuy wax ñu ngi lay gis ñu ngi lay suivre ñu ngi déglu xam-xam bu leer bi ngay joxe loolu yëpp nag soble bi moo ko waral dafa am xam boo xam ne xam nañ ko si biir soble bi muy ay façon xam-xam yu bëri yoo xamante ni ñu ci biir soble bi lu si ëpp moom la ñuy liggéeyee te képp kuñ si jëflantee yàlla mu ngi ñuy defal sutura loolu moo tax ñu tuddee ñu ko loolu tax ñu tuddee la ko waaye dafa mel ni ñaari doomu soble nga yor. Mhm. bii ay puso nga ci jam beneen bi mu mel ni ay mhm. bant nga ci jam. Mhm. Ah, lan mooy firnde bi. waaw bi ci jam ni ay dég leen ci jam dëj yi ñu ngi ko jëlee ci armeel képp koo xamante ni am nga sa noon bu lay xeex wala bëgg nga kaaraange nit du lu mënal dara wala dara nit ñëw tëkku la ne la dalay ray wala nangam lii buñ la ko defalee bu soobee yàlla yonent bi kook da nga tiim bàmmeelam parce que dégg yi nii ci armeel lay sax fa lañ koy jëlee suñ defee li ñu def ci liggéey ba pare di ñu xar soble bi ci biir def si luñ ciy def dem ci dégg yi am fu ñu koy yóbbu bu soobee yàlla yonent bi képp koo xamante ni bëgg nga kaaraange buñ la ko defaree am na càngat yi ñu ciy defal yoo xam ne ni ñu ko defaree nii lañ koy defaree nga defal la ko nga sangoo ko boo ko at mi yëpp mën ngaa toog de nit mun na la jéem a def lu bon waaye du jàpp nit mun na la jéem yàq waaye du dal nit mun na jéem a nit sax pour yàq la waaye yàlla day téye làmmiñam ba du oote loolu moo waral tey jii ñu jëm ci dëgg yi nii pour wane beneen façon boo xamante ni mus nañ ko wane sax pour wanaat ko nit ñi wan leen neneen xam la boo xamante ni bu wér la moom la ñuy liggéeyee. Mhm. xam-xam bu wér la beneen bi mu mel ni ay puso nga ci jam mhm. waaw bii nii ay puso moom bii nit ñi min nañ ko bu baax a baax lu tax ñu siy jëm ay puso mooy bu fekkee tey da nga am jigéen booy bëgganteet wala nga am sa jabar mu wala nga am nit koo bëgg yaa ngi dégg faale wula lijjanti wula bu ñu defee lu ñuy def ba pare diñ siy jëm puso yi puso yi nag bu ñu ci jamee moom du toog feeg waxut ak yow puso yi bu jamee buñ fuñ koy def buñ ko yóbbee ba def ko si feeg waxul ak yow du am jàmm loolu waral ñu ciy jam puso yi maanaam nii noonu la mel bu fekkee da nga am sa njaboot muy tasaaroo nga am sa doom boo xamante ni dafa bëgg të nga am nit koo xamante ni da kaa bëgg mu lay sonal wala jabar boo xamante ni yemut moom foofu lañ koy jaarale buñ ko si jaaralee diñ koy jam ci puso yii nii suñ si jamee puso yi bu soobee yàlla ak yonent bi moom feeg waxut ak yow du am jàmm dana def lu nekk dina sonn du toog du toog du mën a toog day mel ni ci ay safara la toog fekk waxut ak yow loolu moo tax ñu siy jam puso yii nii soxla bi lu muy liggéey bëri na même bi ci wàllu dëdd dëddlee da koy def day boole koo xamante ni dafa ba da ngaa bañ sa jëkkër takkal la ujju wala da nekk nit koo xamante ni da ngaa am jabar mu të wala da ngaa nekk nit koo xamante ni da ngaa nekk ci koñ bi nit ñi yaa ngi dégg di la wax say tur di di di toujours ñu ngi tudd say tur te dalay tardeel ñëpp xam nañ la làmmuñ baaxut loolu buñ ko jaaree si dégg yi ñu la wax mu ne nit mënul wax ci àdduna ba catu la wala nit mënul wax ba làmmiñam jàppoo la parce que làmmiñ dafa garaaw làmmiñ balaala ba jigul sax diñ koy wax jigul sax bante waxuma la nit loolu moo tax mhm. su ma la déggee ci biir wax mu mel ni ci tënk rek euh, benn soble bi nga xamante ni ay dëkk lañ ci jàmm. Mhm. pour lépp loo xamante ni rek euh, moom mooy kaaraange doomu aadama da ko ciy def. Mhm. beneen bi moom mooy euh, li nga xamante ni moom moo di wàllum nopp. Mhm. boole ay digganteek yooyu noonu. moom moo ko tax a jug. ba tey ñi nga xamante ni rek dañoo nekk ci ngoroog lépp loo xamante ni rek dañ koo bëgg seen diggante kañ nekkal. boo ko defee ci li nga koy def bu soobee yàlla seeni raawaan daan na juboo bu baax a baax. macha allah loolu am na solo lool. Euh, waaye ñu dugg ci biir waxtaan bi rek biir laaj bi ñu daal di koy dooree ak li nga xamante ni moom moo di mbirum seet mm-hmm. wàllum seet gis nañ ko jug ni day seet sëriñ si bari nañ lool lool lool lool lool waaye dafa mel ni rek seet yi wuute nañ ay anam euh, yan ban façon seet ngay seete waaw ñun fa lillahi hamdu suñ seet si suuf lañ koy def bu léegi bu ñu duggoon si biir damay wax ne man su may seetal nit sax nga ñëw ñu jàkkaarloo moom moo ma gënal kon lu ñu jàkkaarloo nga gis ne lu ma lay defal yaa ngi ciy teg si bët comme ni nga ko waxee seet yi bëri nañ te Sénégal sëriñ si yëpp daanaka bu ñu la seetalee li ñu lay njëkk a wax mooy da nga am rab dafa mel ne ñëpp a yor rab rek loolu nag dafa am lu muy teg ñi dañ dañ du seet wala dañuy toog di wax lu leen neex wala dañoo mënul seet ñun nag moom boo ñëwee nanga nga rab bu la neex na nga ànd ak jinne bu la neex demal fu ne ñun lu ñu lay wax si seet premier fois nga koy dégg si ñun teguñ ko fenn nag dañ kaa teg si lu wóor luñ jàng lu wóor nañi yaa ngi dégg ñun si suuf la ñuy seetee comme ni ko yàlla waxee si alquran isa sulsilatil ardu silsaala moo tax ñun si suuf la ñuy seetee seet nag bëri na bëri na ay façon yu bëri waaye ñun dañoo tànn suuf si alquran ji pour barkeloo ko ndax ñun suñ lépp alquran la lépp lu ñuy def rek ci alquran lañ koy def mm-hmm. lépp loo def ci alxuraan ngeen koy tekk ah, ñi nga xamante ni dañoo nekk biir wala bitim réew ah, bëgg li nga xamante ni moom moo di ay kayit mu leen di jafe lool ah, nan mm-hmm. ngay faral di jëflante ak ñoom. waaw alhamdulilah yàlla suturaal nañu si parce que ñun dañuy wax ne ñu ëpp ñi nga xamante ni ñu liggéeyante fii leen liggéey ak ñoom avant ñuy dem fi leen liggéey ak ñoom bañ am fii kayit dem moo tax ñun suñ génn sax bu bëriwul ñun duñu am problème loolu parce que lu ëpp lu ñuy liggéeyee dañuy dañuy boole ak moo tax képp koo xamante ni yaa ngi bitim réew yaa ngi dégg nga bëgg mbiri papier bu ñu ci jëflantee boo ñu ci bu ñu ci jëflantee bu soobee yàlla ak yonent bi di am li nga ci bëgg même papier yi sax di koy jaar ci soble bi mun nañ see jaar ñu utal le papier parce que bu fekkee ne yow ngay déposer ko xam nga ko wala ku yor dossier bi xam nga ko wala dara boo ñu joxee turam ñun mën nañ ko jaaree ci soble mu gën gaaw mu gën a gaaw même boo xamul turam am na foo xamante ni diñ fiy jaar ak yow bu ñu ko jaaree yow am na yu ñuy bind yónnee la nga jot ci ñun tamit lu ñuy def ñu def ko fii bu soobee yàlla ak bu fekkee dem nga ba dugal say kayit ba teg sa empreinte ba pare bu soobee yàlla yonent bi bu ñuy tudd bu ñuy buy génn résultat yi di génn cinq yi ñuy njëkk lim yow si ngay bokk incha allah. macha allah am na solo lool ah, mu mel ni rek yamu foofu ndax ñi nga xamante ni dañuy jàng ah, di wut li nga xamante ni moom moo di examen ñi nga xamante ni dañoo nekk di def ay concours wala xale yi nga xamante ni tamit dañuy jàng mais seen xel neexul du ubbeeku benn yoon am na loo xamante ni suñu borom baaxee na la ko ci tamit côté boobu. waaw alhamdulilah xale buy jàng mag muy fàtteeg lépp. am nañ kiis boo xamante ni buñ la ko joxee boo ko naanee bu fekkee mag nga dangay ngay fàtte da koy bàyyi bu fekkee xale nga lépp loo jàng danga koy mokkal lépp loo dégg danga koy mokkal te yaakaar naa boo jàngee li ngay jàng say leçon boo ko mokkalee boo demee examen loolu amul lu ñuy werante lépp lu ñu ut rek bu dee bac la wala BFEM wala lu mu munti doon wala antara lu mu munti doon ku si jóg jëflante ak ñun parce que si ba école di ubbi bees euh, ba si avant école di tëj liggéey nañ si lu bëri lu am solo loo xamante ni am na yeneen seen yeneen naataango yu fi ñëwoon ñu def déclaration bi nit ñi ñëw nañ bañ jox leen ko képp koo xamante ni daal da ngaa yomb fàtte dangay ngay dégg di fàtte wala ngay fàtte suñu jëflantee ak ñun soobee yàlla ak yonent bi kiis bi bu ñu la ko joxee boo ko naanee lépp loo dégg dootoo ko fàtte bu neexee yàlla noonu la mel si tamit kuy jàng boo bëggee entra wala loo mun di bëgg kiis bi boo ko jëlee soobee yàlla loo dégg dootoo ko fàtte boo bu fekkee danga daan toog ci classe bi sax di absenté li ñuy expliqué doo si xam dara yow dootoo si bokk bu neexee yàlla lépp lu ñuy expliqué nga ko dégg te buñ boo demee examen kenn du la raw koo rawul du la raw. Mm-hmm. macha allah am na solo lool wàllum am am muy ñi nga xamante ni dañoo bëgg tamit ubbeeku bu gaaw. Mm-hmm. waa alhamdulilah ubbe bu gaaw képp koo xamante ni bëgg nga alal boo ñëwee fii si ñun am na fu ñuy jaar ak yow bu neexee yàlla ak yonent bi da nga da bu fekkee alal nga bëgg da ko am alal nag dafa bëri te bokkul tey nit war ngaa mën a am benn cent million dégg nga muy ñëwoon muy ñëw par un million di ñëw par deux million nga koy lekk ba bam ba mu numturati da doo si xam dara nit mi ngi yor xaalis mi ñëw ci loxo mi waaye du taxaw loolu yëpp dafa am lu koy def boo ñëwee danañ seet lan mooy def loolu ñu njëkkee ci bala ñu laa defal wërsëg ngay am ba pare dañuy xool lu tëj ci yaram bi boo tëjoo ñu tijji ko ba pare doo di la defal dara parce que nit ku tëju baaxul boo tëjoo bu tey ji man su ma tëjee woon bu ma toogee ak yéen sax dama leen umaale boo bokkee moom kër sax da nga koy um boo bokkee moom entreprise entreprise bi mën na mën naa num tudd mën naa daanu moo tax képp koo xam ne yaa ngi yor entreprise bul bul sàggan bul yaafus xoolal ñi ngay liggéeyloo lan la xoolal li ngi leen defloo lan la parce que ku tëju bu fa nekkee rek loolu moo waral entreprise bi day xëy di dem par benn par benn ba xëy daanu ñun nag boo ñëwee fii xam nañ fi ñuy jaar ak yow xool sa yaram lu si nekk ba pare ba dindi ko ba mu set su soobee yàlla bu paree ñu jàll yow ci wàllu wërsëg am na cangat boo xam ne boo ko sangatee 16 jours lañ koy sangatee doo toog mukk 16 jours yooyu bu jeexee doo toog mukk semaine boo xam ne bu dee téewoo xaalis boo xam ne mosoo kaa téye si dund bi bu fekkee un milliard nga bëgg tamit yàlla dana def da nga ko téye bu neexee yàlla incha allah. macha allah xale yu jigéen yi nga xam ne dañuy taxaw taxawaay bu yàgg maanaam borom kër di leen të. xale yu góor yi nga xamante nii tamit pour ñu fas soxna day nekk loo xamante ni lu jafe lay doon ñuy dégg rek ñii dañuy am coro rab. Mm. ñi nga xamante ni tamit dañuy am li nga xamante ni moom moo di uh, faru rab. Mm. Uh, ban uh, ban kii nga ban saafara nga am ci loolu. waaw fa lillahi xam bu fekkee xale bu jigéen boo xamante ne dafa am faru rab boo ko boo ñëw si ñun lenn lañ lay laaj boo ñëw na nga jëndaale tubay bu bees jidlaay bu bees luñ siy def buñ ko defee ba pare jox la expliqué la noo koy defee nga dem nga yóbbu ko sa kër boo ko solee nga fanaanoo ak moom boo xëyee da ngay tàggalikoo rab bi bu fekkee góor tamit bu am gelu rab la boo xam day sëy ak moom noonu kazalika noonu lañ koy fajee bu fekkee nag da ngaa taxaw amoo jëkkër soo ñëwee dañuy xool lan lan moo teree am jëkkër parce que loolu mën a teree am jëkkër bëri na soit mun na nekk si yow ngay tànn di xool kii laay tànn wala wala mun nga am rab boo xam ne dafa fiir bëggul nga takk wala mun na am feebar boo xam ne mi ngi ci yow loolu boo ko defee soobee yàlla ñun danañ xool lu ñuy xool bu ñu la ko joxee defal la cangat bi jox la ko am na lu muy àndal bu ñu la ko joxee wax ni ñu koy defee boo ko sangatoo weer boobu nu nga ko sangatoo doo toog mukk te amoo si jëkkër noonu la mel tamit si jigéen boo xamante ni dafa taxaw amul doom boo ñëwee lu ñuy xool bu ñu ko xoolee ñu la ko joxee boo ko naanee dana jëngal sa biir bi bu dawlee sa biir bi ba pare bu fekkee ne weer la weer bi bu dee soobee yàlla gi noonu bu fekkee da nga daan gis say règle dootoo ko gis danga jël biir noonu la mel bu fekkee góor boo xamante ni tamit kazalika dafa dafa dafa too bëgg jabar mu të ko fu mu dem ñu dàq ko kooku mën nañ ko dugal ci kaabu ci ginnaaw rek dafa nekk koo xam ne dafa tëju nit ku tëju du laal dara ba mu baax lu mu laal day yàqu fu dem ñu dàq ko fu ñu la wërta dàqee sax dañ la dàq boo ñëwee ñun danañ ko xool seetantan la dimbale la bu fekkee dañ laa war a faj ñu faj la ba pare bu fekkee dafa am ay gàllankoor la ay sarax la ñu wax la sarax yi ngay def boo ko defee boo demee incha allah incha allah bu tabaraka wa taala yàlla dina def tawfiix te it góor ñi ñun ñëpp maa leen wax ñu takk jabar jabar day ubbi waate képp ko yor rek yàlla du la seetaan macha allah am na solo lool ñu jeexalee ko ak li nga xamante ni moom moo di wàllum impuissance sexuelle mu nekk feebar boo xamante ni yaakaar naa lu sonal askan wi la balaa ñuy dugg ci li nga xamante ni moom moo di actualité réew mi waa alhamdulilah loolu tamit sonal na askan bi trop ñu am nañ ci garab yoo xamante ni bu soobee yàlla ak yonent bi suñ ñëwee dañ la ko fas dañ la ko faj jaarale la ko ci alquran ba pare am na ay tegtal yoo xam ne mu ngi ci alquran danañ ko jël bind la ko jox la nga naan te naanee da nga wér su tamit am nañ ci wuri sunguf yoo xam ne sunguf yi efficace lañ boo ñëwee nag ko xool ba xam lan la parce que nit ñi dañuy wax rek naan ay eh, jimmoo yi la wala lii fekk du lool mun nga nekk rab rab mun na téye rab dafa soxor bu la duggee day téye sa butit ñuur gi mun nga am rab bu soxor wala mu sa butit bi nga xamante sa sidit bi bu ko defee dootoo man dara sa soxna wala dara boo ñëwee ñun danañ xool loolu ban la ci soo ko suñ ko xoolee ba pare bu soobee yàlla dañ leen si jëflante ak yow traitement la nag nit ki comme da ngay da mel ni kuy dem hôpital rek bu ñu la waxee ne la bu dee ñëwal doo ko tardé sëriñ bi tamit bu la waxee boo demee bu liy jeexee ñëwal na nga ñëw waaye bu ñu la waxee jeexee ñëwal doo ñëw dem ba mu neex la naqadi nga bugg a ñëw naan sëñ bi dugg na fii wala génn na fii bu boobaa yow yaa ko teg sa bopp waaye daal bu fekkee judduwaale woo ñun boo ñëwee si ñun danañ ko faj faj ko ba mu ba mu wér palang waaw amuñ ci ay xel ñaar te yàgg nañ ci liggéey bi yàgg nañ ci war nañ see def lu jege fukki at te yàlla mu ngi ñu ci suturaal suñ ci am benn problème moo tax. Mhm. macha allah internet sans limite TV fàttali leen ñoo ngi euh, jàkkaarloo ak Serigne Daouda Seck euh, borom soble bi euh, numéro téléphone am di 77 610 79 57 78 563 13 51 ñaar yooyu moom mooy numéro Sénégal bu Gambie bi de 2003 74 61 dégg ngeen kàddu yooyu nga xamante ni yëkkati na ko fi pour xale yu jigéen yi nga xamante ni bëgguñoo am wujju bëgguñoo am bëgg am li nga xamante ni moom moo di borom. kër ak euh, xale yu góor yi nga xamante ni dañoo bëgg tamit jabar ba ci ñi nga xamante ni dañoo bëgg am am bu gaaw ubbeeku ba ci kaaraange ak ñi nga xamante ni euh, dañoo bëgg ay muslaay da nga koy daal ci woo ci numéro téléphone yooyu noonu rek mi ngi ñu bind ci baaw écran bi képp ko ko ci woo bu soobee daa ngeen jokkoo bu baax a baax nga jot tamit euh, ci li xamante ni moom moo di ay service am sëñ bi ñu daal di koy jeexale ak actualité réew mi gis nga réew mi fan yi ñu toll tàng tàng bi nga xamante ni am na fi coow yi nga xamante am na fi balaa bi nga xamante ni tamit am na ci euh, maanaam coow li jëppee ci li nga xamante ni moom moo di ku jekk politique gi euh, ban jàngat ngay am ci mbir moomu en tant que koo xamante ni day seet di listixaar di xool li nga xamante ni euh, day xam ci day xam dara li nga xamante ni moom mooy xew ci réew mi. waaw alhamdulilah réew mi lu si xew ñun ñëpp gis nañ ko muy affaire yi Ousmane Sonko bi man nag ñu may njëkk wax mooy borom xam-xam yi nga xamante ni génn nañ. ñu ne Sonko oustazam bi li mu ko wax ne ko ne ko demal nga faj du noonu laay njëkk weddi parce que lu tax ma leen di weddi mooy islam dalaa wax ne la sooy dem foo xamante ni jigéen mu fa na boo yoree soxna na ko yóbbaale mu dem mu xool mu jàng nan la koy nan la koy defaree bu ko mënee mu def ko ñii nag mënuñ Ousmane Sonko jabaram yi mënuñ lool mu dem day faju kuy faju lool yaakaar naa ñun ñii ñëpp ñu ngi yor ay soxna suñu soxna yi dañuy toll diggante ëmb dem hôpital ñu war leen visite lu tax kon yow sa jabar biy dem ci hôpital bi ñu koy visite doo ko topp boo yeggee bu ko góor na lay laal nga ne ko bàyyi ko kii jigéen na koy laal pourtant da ngay toog ci kër gi bàyyi ko mu dem te sa jabar sa responsabilité sa loxo la nekk loolu dañ ci wax moo tax ñiy wax leen neex dafa bëri sëñ bi gis nga Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni wax dafay yomb ku ne day jug di wax moo tax gis nga waa jii nii Moustapha Diakhaté xooma gis nga kooku moom si change moom yàlla war na ko boppam nit booy wax da nga wax dëgg sooy wax di wax loo xamante ni du dëgg da nga juum sa biir wax ñëpp condamné la yow ñun diñ ci déggee na moom rek amul benn xam-xamu diine yonent bi nga xam ne yaayam ak baayam waykat yi sax diñ koy way waykat yi sax ñi ngi way yaay yonent bi ak baay yonent bi moom mu taxaw ne xamu ko ne jullit la loolu dafa ñaaw teg si en plus leneen lu ñu ciy wax mooy kilifa diine yi nañ wax nañ wax kilifa diine yi population bi jox nañ leen seen cër buñ moom respecté nañ leen waaye ñoom dafa mel ni yëguñ population bi parce que lan ñoom amuñ problème mu dépasse amuñ problème oto problème mu dara amuñ problème fu ñu dëkk moo tax duñ nangoo wax seen benn njaboot du si loru yaa ngi dégg moo tax ñëpp maa ngi wax ak ñëpp lu sëriñ Mansour si waxoon sëriñ bu la wax ne la dama lay dugal aljana boo amee yet na nga ko dóor parce que bët bu seet sëriñ romb 100 mètres fii taalibeem boo xamante ni mu ngi fa yaa ngi ñu ngi ko fa tëj te mënu kaa génnee ku la mënta génnee 100 mètres du la dugal aljana moo tax gis nga mbir mbir yii nii ñun ñoo ko mën a régleel suñu bopp ñi nga xamante ni tamit ñi ngi wax ne ñi nga xam ne dañoo demoon di manifester wu bañ jàpp leen yaa ngi dégg jël leen naan ay ñoom ñoo perte wala nii lii jihaad la ku si dee aljana nga jëm képp koo xamante ni tëj nañ la si kaso bu soobee yàlla ak yonent bu yowmal xiyaamee ñi nga xamante ni ñoo la jàpp tëj la ñoom ñooy nekk ci biti ci safara bi ci mbugal mi yow nga nekk si biir aljana parce que lan sa réew ngay xeexal te yonent bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax na ne ubbul watan minal iman nit doo ko xool kom sa bopp tey jii man dew ma dew ma foofu noonu nit ki nga xamante ni am na fukkoy ko réew mi toll am na fu ko yëf yi toll ba mu jug di dem di xeex boo ko munta boo ko boo ko munta encouragé mënoo kaa ñaanal bul ko wax dara bàyyi ko rek waaye di toog ñu jox la micro nga naan bu leen dem nangam bu leen dem nangam bu leen dem nangam te yow ñi ñii def loolu ñoom dañoo di ñu xeexal seen réew ñoom ak militaires yi nga xamante ni ñi ngi dem ci àll bi di xeexal Sénégal ñoom ñoo yem ndax Sénégal la ñu xeexal xeexaluñ Ousmane Sonko xeexaluñ Macky kon ñoom ñi ngi seen réew te ku ku daanu ci xare rek aljana moom nga yeewu ji ñoom ñëpp képp ku si gaañu wala nga deesi wala nga def si dara aljana nga yeewu ji moo tax sëriñ yi nga xamante ni ñi ngi wax man ñoom laay wax nit bu fekkee da ngay wax nit ñi di la déglu li ngay wax da koy xool bu baax nga nekk sëriñ nga war a wax nit ñi di la déglu nga toog naan ay bu leen dem def lii bu leen def ku am lu la métti da ngay nga dem nga num tuddati ko ku am lu ko métti moom moo xam lu koy métti yow xamoo ko yow sëriñ bi lu tax ma koy aaye ah mu ngi mel ni tey yow ji yow tey jii ni sa bopp di métti rek man la bul jël garab gi nga bëgg jël garab boo xamante ma bëgg laa jox garab boo xam ne tànk yi métti la da nga nooy ko nangu parce bopp ay métti nit ñi nga xamante ni ñi ngi dem di génn di manifester wu ñoom ñoo xam lu leen métti nanga maanu moo gën na nga maanu comme ni ko addis bi waxee fal yaqul xeer aw lu yasmut boo xamul na nga noppi bul wax waaye nga téye toog rek ak si toog nga micro yi tàkk amoo benn problème yow sëriñ bi amoo benn jafe-jafe yaa ngi dégg ñee ñi ngi am jafe-jafe mënuñoo lekk mënuñoo naan boo génnee fii mbedd bi léegi ñi ñi dañ lay kal naan laa sëñ bi awma lu ma yóbbu kër ga ñëpp xam na ne dëkk bi dafa métti mbiri sonko yi nag bu fekkee ndaw si moo def moom moo xam bu fekkee Sonko moo def moo xam ñoom seen diggante seen borom seen borom la ñun du ñu si wax loo xamante ni dañuy bàkkaaru wala ñuy def yi lenn daal xam naa ko sunkoo nit ku baax la Sénégal lu mu jëfee wax nga nekk fi lu mat ñeenti at xawma juróom ngay wax kenn mënu laa weddi kenn mësu wax ne li nga wax ni amul kooku nit ku baax la nit ku dëggu la ndaw si timit man xaw ma ko mënu see wax si moom dara waaye Sonko daal yàgg nañ kaa seetaan gis ko mu ñuy waxal loo xam ne si réew mi ñoom ñi fi nekkoon di wax ku mel ni ay El Hadj Diouf ku mel ni kooku noonu Moustapha Diakhaté ñooñu noonu kenn mosu leen a gis ñu wax wala ñu def ko yaa ngi dégg ñoom dañuy wax rek di jariñu si réew mi waaye réew mi moom du di duñ mos a mosoo gis entreprise buñ ne la kii moo ko moom El Hadj Diouf moom wala lii kooku moom nitu fitna dëgg la moom kooku yàlla nañu yàlla musal si moom kooku nitu fitna la day yokk day yokk ay bi moo tax ñi ngi ñaan président Macky Sall na ko lii na ko jeexal yaa ngi dégg dégg na euh, sëñ bi bu mu ko ooyee dana ko sama yoon nekku si waaye moom dafa xamul ne yaa ngi dégg xeer nit Sénégal bu génn si mbedd bi xeer fakastal la sax yaa ngi dégg moom moo nekk responsabilité bi moom moom ñu ñëpp moo yor suñu responsabilité ëllëg yowmal xiyaam billahi ladi laa ilaha illa huwa xeer bu taw si kaw mbedd bi gaañ ñi sax yàlla dana na ko kaay ba nga yoree mi yooyu lu tax toxaloo xeer bi waxuma laak nag nit noppam koo xamante ni mi ngi yor njaboot yor doom yor ay soxna yor lépp nga bëgg ko jël rek tëj ko ci nga bëgg ko jël rek yóbbu ci kaso bi wala ñu bëgg kaa sàkkal pexe si lan ay affaire politique Sonko bu waree nekk président Macky Sall mënu ci daara Macky Sall bu waree am troisième mandat Sonko mënu ci dara loolu lu yàlla di dogal la. wax ci vaccin yi ñëw ñu jéem a xool mbas mi nu mu génnee suñu réew mi ñu jéem a doxal jéem a dem si kanam Sénégal léegi jikko yi yàqu na nu ñu xamee woon Sénégal lépp lépp yàqu na. léegi nag ñu ko yàq ñan la mooy suñu politiciens yi rek ñoom daal ñu ngi nii rek kenn xamul nan lañ leen def kenn munu si ñoom dara yàlla nañu yàlla musal si ñoom yàlla nañu yàlla dimbale yaa ngi dégg bañ mucc si ñii nii ñii bëgg taal Sénégal yàlla nañu yàlla dimbale bañ mucc si ñoom ñu de ñu ngi ñaan yàlla képp ku bëgg taal Sénégal wallahi wal kitaab ñu ngi lay ñaan yàlla te duñu si am benn bàkkaar parce que da ngaa bëgg taal réew mi ñun jàmm lañ bëgg Macky Sall ñu ngi lay oo di la ñaan lii nii nga fexe mu nga bàyyi mu dem si suuf mu jeex ñëpp delluwaat ci jàmm ak salaam. Mhm. macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la bàyyi nga nuyoog internet yi la doon seetaan. waaw ñu ngi sant bu baax di gërëm sans limite di leen ñaanal te bi yàlla yokk ko ba mu nekk tele te yàlla dimbale leen yéen tamit seen liggéey bi rafet na wax dëgg fa yàlla am liggéey moom bu amee yar ak teggin rek lu xaj na ci. di wax ne wax ji bu amee lu si ñaaw wala lu si ñagas ñu ngi jégalu bu baax a baax xam ne ay doomu aadama lañ matuñ waaw lu si mat si yàlla wa ma zalika àlallahi bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي